الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وأدر عليهم النعم والأرزاق ليشكروه وأمرهم بحماية أعمارهم وحفظ أوقاتهم ليستفيدوا من حياتهم ويفوزوا بالربح والفلاح حين يلاقوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما خلق الإنس والجن إلا ليعبدوه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين بين للعباد طريق سيرهم إلى الله من آمن به وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم خلقتم لأمر عظيم خلقتم لعبادة الله تعالى وقد نهاكم عن كل ما يصدكم عن ذكر الله وعن طريق السعادة وإن في مجتمعنا مشكلة تصد عن ذكر الله وتوجب لعباد الغفلة عن طاعة الله ألا وهي مشكلة الإصرار على اللهو من الاستماع إلى آلات الطرب والغناء المحرم ولا أدري ما شأن المصرين عليها هل هم في شك في تحريمها أم عندهم ضعف الإيمان فمن كان في شك في, تمري في تحريمها فليستمع إلى بعض النصوص قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين قال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو إن ذلك هو الغنى وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أناس يستحلون الحر والحرير walqamara walmaazif ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom mi bind ay mbindaafonam mu bokk ci nit ak jinne dara taxul mu bind leen lu dul ngir ñu jaamu ko sotti na ci ñoom ay xéewal wërsëgal leen wërsëgu tey ngiree ñu mën a bokk ca ña koy sant mu sant leen ñu aar seenug dund wattu seeni waxtu ngir ñu mën a jëriñoo dund googu ba mën a texe bis bi nga xam ne dañuy daje ak moom ñu ngi seede na moom dong yeye ñu koy jaamu amul kum bokkaaleel nguuram gi di seede na muhammad ab jaamam la woon yonent yàlla la woon def na ko mu nekkoon ki mujjee yónni ci yonent yàlla yi yonent dootul am gannaawam abadan yonent yàlla muhammad boobu it dootul ñëwaat ci kaw suuf di feeñ ci beneen xeet abadan ñi ngi seede ne jottali na la ko yàlla yónni woon leeral na yoon bay jëme ca yàlla képp koo xam ne gëm nga ko daa di topp njub gëm indi woon ku mel noonu du tiit ku mel noonu du jàq ci mbiri àddunaak la nga xam ne ma mbiri àllaaxira gannaaw loolu mbokk jurit yi maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla te xam ne yàlla da leen a bind ngir mbir bu màgg lool moo tax mu indi leen ci kaw suuf yàlla da leen a bind ngiree ngeen jaamu ko noonu it la tere lépp loo xam ne day dox digganteem ak jaamu yàlla googu lépp luy dox sunu digganteeg texe googu sunu boroom da koo xaraamal ci ñun waaye mbokk jullit boo xoolee tey sunu dëkk ak la nga xam ne bari na ci dëkkul islaam yi am na benn problème bu rëy benn feebar bu màgg boo xam ne mi ngi sàggan loo jaami yàlla yi dox seen digganteeg la yàlla wàcce woon ci ñoom muy alquran ak sunna musiba boobu mooy lan problème boobu mooy lan mooy la nga xam ne mooy itteel nit ñi ci musique bu bon bi ci way yi tasaaroo ci sunu bi sunu biir réew yow mi laaj da nga dul xam ma nit ñi ni nga xamee ne nii noonu lañ ciy këppoo nit ñi ni nga xam ne noonu lañ leen màggale ndax dañoo sikki sàkk ci ne musique boobu dafa xaraam wala boog xam nañ ne kay daa xaraam waaye ngëm bu sell moo fi amatul ala kulli xaal yow mi nga xam ne xam nga ne musique bi xaraam na waaye bànneex ba ca nekk tax na ba moytuwuloo ko moytuloo loo ko sa njaboot ñi ngi lay ñaan nga tuub dem ci ya dem ci yàlla bala ngay dajeeg moom amma yow mi sikk sàkk ni musique bi dafa xaram kaay ñu bokk déglu sunu waxi boroom ak sunu waxi yonent yàlla ca la nga xam ne dafa wàcc ci biir loolu mbokk julit sunu boroom subhanahu wa taala bi mu yónnee sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daan dem ca kaaba ga di waaraate kii nga xam ne mooy nadr ibnu haris da daan dem ca ruum ay sireeg jordaneeg la ko wër daa di fay jël jënq yu rafet ñu nekk ci kaaba gi di tëgg di woy ngiree nit ñi bañ a dem déglu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom wàcce ca suratu luqman daa di ne am na ci nit ñi ñoo xam ne ñi ngi jënd pookore ci ay wax di ca fegee yoonu yàlla jàpp ne yoonu yàlla woowu ay caaxaan la di ko saboote mbokk puukare ci ay wax yooyu kenn ci sahaaba yi lënkoo woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di abdullah ibnu mas'ud waat na ci yàlla ñetti yoon wallahi lazi la ilaha illa huwa mu wax ko ñetti yoon daajala loolu mooy woy loolu moom muy musique yi mbokk ay musique ak i way lu xaraam la ci biir lislaam yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam nee woon na balaa addunaa tukki dana am ay nit ñu bokk sama xeet daañ fexe ba ñeent yu xaraam yi daañ ko taaral ci bëtu nit ñi ba dootuñu ci waxati dara la ci jiitu mbokk mooy alxirr xirr mooy lan mooy njaaloo njaaloo googu taaral nañ ko ci forme yu bari sunu borom nee na julit am nga droit am ñeenti jabar nga gis koo xam ne dana am quatorze wala quarante ñu jàppale ab sëriñ la wala lu mën a doon nit ñi duñ ci wax dara taaral nañ ko ne c'est le plus vieux métier du monde mooy liggéey bi gën a jiitu ci àdduna ay jigéen mën a dem polyclinique ñu jox leen seen i carte ñuy liggéey guddi benn policier amul droit wax leen dara loolee mbokk mooy njaaloo googu naka noonu mooy sangara yeneen ci bi nee na dañ ko daganal tudde ko yeneen i tur yeneen i forme donte ne luy màndal rek loolu dafa xaram nee na daan daganal suwaa ci góor donte ne jigéen am na droit sol ko lan ci jublu woon nee na daan daganal musique na am mbokk nit ñi daganal leen dagal nañ leen musique ci forme yu bari léegi la nga gis ay mbooloo diine sax dañuy am ay instrument musical yoo xam ne moom la ñuy neexale seeni jataay ay kilifa yu mag kilifa dina jiite ko loolu mooy la yonent bi waxoon ci ay waxam du deñ loolu it mbokk julit jamono ji ñu toll lu tiit lu am na ci Sénégal moo di ne ne Sénégal ñi ngi ci ay jafe-jafe solution yi ku nekk nga koy jéem a wut ñee ngi def ay assise nationale ñee ngi utiliser le plan politique ci côté bu nekk mu am nag benn mbooloo bu ñuy tuddee mbooloo Y'en a marre nga xam ne la ko jiite mooy ay musicien la ko jiite mooy ay bandkat ak taaxurankat nga xam ne ñoom ñooy ñëw tey jiite seen bi ndaw ñépp fàq nañu topp leen mag ñi nga xam ne intérêt àdduna yépp a ngi bëgg a séetoo ak ñoom ñu leen di invité ci télévision yi di nekk loo xam ne dañ leen di màggal mbokk loolu mbir la boo xam ne bu tiitlu la ay yow doomu aadama sa borom yàlla moo la bind inna xalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi fa jaalnaahu samian basira sa borom yàlla moo la bind daa di lay defal xiiwal yu màgg mooy nga mën a dégg mën a gis combien de millions ci ay doomu aadama la yàlla xañ mënuñu dégg ci kaw suuf yow yàlla wërsëgal la ngay dégg mbokk nopp yooyu da nga cee war a sant yàlla ca mooy fexe di ko jëfandikoo ca la yàlla subhanahu wa taala bëgg amma sunu jamono tey jii amul mbedd mooy dugg lu dul musique moo lay teeru marché booy dugg lu dul musique moo lay teeru rajo yee quatre-vingt-dix-neuf pour cent musique la télévision yi naka noonu lépp musique la ñi ñu gën a màggal tey ci kaw suuf ndax mooy scientifique yi laa ndax mooy borom xam-xamu diine yi laa waaye ñañ gën a màggal mooy musicien yooyu kon bu ñu génnoon gone yaag ñépp faq loolee mbokk da ngay gis ne lan moo ko waral moo di ne loolu mooy kaddu cheytaan sunu borom yàlla moo ne woon cheytaani wastafziz man istataata minhum bi sawtik na nga utiliser sa kaddu ci képp koo xam ne mën nga ko ci jaamu yàlla ngir réeral ko kaddu cheytaane googu mbokk moom mooy musique bu bon bi nga xam ne tey jii ñi ko taaral mooy tubaab bi nga xam ne ñooñu moom soo demoon ca seen dëkk musique yooyu dem na ba mujj sax jur ay diine kan moo xamul lan mooy rastafarisme nga xam ne la ko doon véhiculer muy reggae boobu nga xam ne seen xalif général ba mooy Bob Marley képp koo gis muy tasaaroo jiin yi tasaaroo ci sunu ndaw ñi lépp mi ngi jóge foofu rasta ci la jóge xale yu bari ci lañu commencé tux yamba bu bon boobu nga xam ne heure bu ñu ma saan daje ñoom les rasta les reggaemen dañuy tux ba kenn du gis sa moroom ba Bob Marley may xalif général ba loolu moo ko mujj rey cancer du poumon ana la nga xamee ne mooy musique rock ya tasaaroo ci Amérique ak la ko wër xatta la nga xamee ni ni mooy Canada am na benn année enregistré nañ fa lu jege fukk ñett ak juróom-ñett la leen rey mooy musique rock boobu nga xam ne ci lañ doon chargé seen nopp yi ba mu créé leen tension ana kan ci yéen ko xamul xalif général de musique pop ki nga xam ne Michael Jackson mu doon soppi boppam comme jinne tey jii da ngay gis xoolal ndeyu àdduna bi yépp niñ ko toppee lu waral loolu ndax ñoom ñi ngi ci toolu cheytaan keneen di dooleel mooy cheytaan ñu dem ba sunu année yi mujj a ñëw mu am loo xam ne génn nañ ko muy lu ñuy tuddee musique rap mbokk rap moom wala fi ñoom jarul ñu leen koy leeral heure buñ ñeene diw rap la rek mooy bokkatul ci nit ñi am déet loolu mooy la am malheureusement malheureusement la nga xamee ni nii mooy am sunu jamono yi tey mooy dina rappeur yooyu tey ñoom lañ jàpp ñoo gën a nite ci kaw suuf ñoom lañ jàpp ne seeni xalaat a gën a wér ci kaw suuf loolee mbokk wallahi safaanoona ak la yàlla feeñal ci ñoom ci zahir ak ci baatin mbokk rappeur yooyu xoolal seen façon colin seen façon doxalin ñaka créé yoon fële ci États-Unis ñoo jàngal sunu doom ñi langal tubay ñaari jéego yuñ dox woggante ko ña nga xamee ne ñoo ko créé woon te France am na fa benn groupe boo xam ne ñi ngi tuddoon NTM yéen ndaw ñi na ngeen dem gëstu ba xam NTM lan lay firi mën naa leen wax ne TM ba ma ngay firi tamer xool leen nag N ba la muy firi nga ñëw fii ci Sénégal gis ña nga xam ne ñoo jiite sunu rab boobu kenn ku nu mu tudde boppam mooy Fou Malade ndax mbokk jullit ab ju doomu jullit war na taxaw tudde boppam man daf laa bu feebar Fou Malade nit ñëpp topp ko na ko way tuyee Fou Malade yow yaay yow yaay waaja beneen waay dëgg ca langa dina man maay nit dof gaa yi nit dof mooy lan gaa yi na ko yow it yaay waaji nit dof nga beneen waay dëgg ca langa dina man maay pakoti ñu ne ko très bien yow it baax nga yow it pakoti nga keneen dëgg ca langa nga ne man maay néew bi caricature la gënoon a màgg la nit ñi gënoon a respecté muy ab néew ba sax ñëwoon na ci njëlbéenu lislaam fu ñu gisee keesu néew ñépp war a jóg taxaw moom buy dem def showam ci keesu néew lay dugg ñu lëmas ko comme néew bu gaa yi tëggee pàkkar ñu ba yaram bi tàng mun a tëll daal di génn loolee mbokk am na suñu rappeur yi nga xam ne ñoom la ñu jël tey màggal leen loolee mbokk télévision yi jàpp ci franc-maçon yi jàpp ci ñu màggal leen siiwal leen ba sunu ndaw ñi nga xam ne tey jii ñu bari ci ñoom mënuñoo tari faatixa bu sell mboolem lu rappeur yi di wax mën nañ la koo génneel mbokk yow doomu julit loolu lu métti la loolu lu tiislu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi jàngaloon sahabatul kiram bokk na ci ibnu mas'ud daana wax ne xam leen ni ni ngay amee sa toolu légume di ko arrosé noonee la musique di arrosé naa fiq ci xolu doomu aadama tànk yaa ngi koy déglu kaset boo déglu mi ngi mel ne siwa ndox boo sotti ca la nga xamee ne mooy say la nga ji loolu moo taxit ba xam leen ne la sunu borom jalla wa ala wax ne walakin allaha habbaba ilaykum al iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al kufra wal fusuq wal isyan ulaika hum rashidun seen borom yàlla day moo leen bëggloo ngëm yàlla ca mooy lépp loo xam ne dafay jur ngërëmal yàlla waaye moo leen bañ loo lépp loo xam ne kéefér la ak génnug topp guy soril jaamu yàlla loolu moo tax ba xam leen mbokk julit wallahi la yastamiu xubbu alquran wa xubbu alghina fi qalbi mu'min abada amul benn julit boo xam ne dana mën a boole am cafka alquran ci xolam ak cafka musique ci xolam abadan du ànd mukk wa ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi ca amul kenn koom ñaari xol benn xol nga am imma alquran fees ca saf la wala imma ay musique fees ca saf la loolu it bu wéyee bi ñu yàlla nattoo ci télévision yi yow bàyyi xanaa doo fiir mu ndax fiire woo say jabar fiire woo sa doom yu jigéen ay ndaw yoo xam ne ay wëndëng lañu liggéey yi ñu defuñu dara dañuy nelaw ba midi ñu jóg toiletu créemu lekk seeni ganaar daal di ñëw commencé di tëgg ak fecc di charme public bi seen jabar yu nob leen seen doom yi liggéey jigéen ñu nob leen mu ana fiiraange ana fiiraange ci yow miy fay facture bi ana fiiraange ci yow mi indi télévision bi lii lépp mbokk ay feebar la yoo xam ne nii tey jii tasaaroo na ci kër julit ñi heure boo xamee ne ñi ngi jàmbat feebar yi ci réew mi ngalla waaye na ngeen xam ne feebar yi ce n'est pas que les politiciens rek ñoo ko indi waaye feebar bi feebar bu tasaaroo la ak képp kenn ci ñun moo war a jóg xool lan moo ci responsabilité mu jëm caa taxaw ngiree bu demee ci kanamu yàlla mu am falay yàlla yàlla dimbali ñu ci dimbali ci bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain عباد الله حكم استماع الموسيقى والأغاني التحريم لما في ذلك من صد عن سبيل الله ومرض القلوب وقتر الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الفواحش والذين قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قال مجاهد رحمه الله الزور هنا الغنى وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون في سورة النجم قال ابن عباس رضي الله عنه الصمود الغنى في لغة آل حمير ففي هاتين الآيتين الكريمتين دلالة على أن استعماء أن استماع آلات اللهو والغنى من أسباب الدلال والإدلال واتخاذ آيات الله هزوا والاستكبار عن سماع آيات الله تعالى أيين بوك جلدي نيغي سانت سونو بوروم جل وعلا ديكا نيان مو جولي سونو يوننت محمد صلى الله عليه وسلم bokk na loo xam ne nii yow mi yor ay nopp cay dégg dégg nga ko mooy musique bu bon bi tasaaroo ci ñun lu xaraam la loolee lu tax dana fekk nit ki ci fàtteloo ko boroomam dana ko jural ay feebaru xor dana ko sawarloo ci tab bi ci ay ñaawteef yu mel ne njaaloog lu mel noonu sunu borom yàlla subhanahu wa taala tagg ay jaamam ca ibaadu rahmaan ya ne mooy ñi nga xam ne du ñu fekk mukk fu ay caaxaan di nekk laa yashhaduuna zura heure boo xamee ni nii dañoo romb nit ñi foo ko caaxaan dañuy romb ànd ak seen teddaange loolee kii nga xam ne mooy mujaahid mi nga xam ne tafsiram bokk na yu jëkk a siiw ci kaw suuf nekkoon taalibi ibnu abbas daana wax zuur bi yàlla di wax fii mooy la nga xamee ne nii moom mooy musique bu bon bii tasaaroo sunu réew gannaaw loolu buñ dellee suratu naj mi sunu borom yàlla mi ngi naan ay yéen yéeféer yi ndax li nga xamee ne mooy alquran jii ngeen di yéemu nekk di reetaan te da ngeen waroon a nekk di jooy amul lu ngeen koy faye mooy du mooy ku nekk dóor say way mooy wa antum saamiduun ki nga xam ne mooy ibnu masud ibnu abbas radiallahu anhu lan la daan wax nee na assumuud moom mooy way looloo tax ba yéefére buñ ma saan dégg alquran ñu koy tari dañuy daal di dóor seeni way ya nga xam ne fent nañ ko wala ñu dégg ko woon seeni maam loolu moo tax mbokk ci ñaari aaya yi nekk na ca luy dollee ko di la waral ne li nga xam ne mooy musique bu bon bi amul lenn lu gën a màgg ci luy wowal xolu julit bi ba dootul mën a dem di dégloo ci li nga xam ne mooy kàddug alquran amma tubaab yi wala yéefir yi de manière générale bi nga xamee ne not nañu àdduna bi dañoo bouleversé wëlbati mboole mi valeur yi fi nekkoon mbokk julit bu jëkk ba jamonoy baax lii nga xam ne mooy mbirum lamb jiitu tama yoo topp ko muy pakkar ñi benn jigéen bu baax bëgg ko woon a jur waaye léegi taaral nañ ko ci bopp nit ñi tudde ko au nom de sport ñoom ñoo jiite tey adduna bi muy les jeux de sport waaye li nga xam ne mooy bandkat taaxuraankat amul benn jigéen bu baax bu ko mënoon a bu ko bëggoon a jur waaye tey da ngay gis ñooy personnalité yi gën a rëy ci adduna bi tey Sénégal chaque année bu ñuy jël l'homme le plus célèbre di de l'année kañu cay wax mooy ab bandkat boo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko loolu mi ngi noonu lu waral loolu mooy yéefir yu ban yi ñoo taaral loolu sunu borom nee na heure bu ñu demee ci dëkk afsaduha afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun dañuy wëlbati dëkk ba ña baaxoon ñu féetale leen suuf saay saay saag ñu bon dañu teg leen ca kaw ndax xale yi nga xam ne ñoo watta alquran xale yi nga xam ne jàngi nañ ba am ay doctorat ci wàllu diine wala sax am doctorat ci wàllu adduna ba mën a taxawu sunu central yi ba courant di mën a am mën a taxawu sunu poste yi ba sunu télé fu ne di mën a dox ndax ñooñu xam nañu leen kenn xamu leen lu tax bandkat yi ñu xam leen mooy loolu mooy la buuri kàccoor yi di def ay yéen mbokk julit nañu góorgóorlu bu baax te xam ne lii nga xamee ni ni mooy musique moom mooy moteuru mbon la chak mooy moteuru mbon amul benn film boo xam ne da nga ko seetaan lu dul la ko accompagner mooy musique boobu nga xamee ne nii mooy la la cay dalal ba nga daggu sa waxtu ya amul benn baal lu dul musique moo ko moo ko jiite mooy benn drogue douce boo xam ne nii tey jii drogue na sunu ndaw ñu bari ba nga xamee ne bi ñu yàlla nattoo ci li nga xamee ne mooy portable la bari ci ñoom koo gis casque ba ma nga ci biir noppam ya ndax la muy dégg ndax aayay alquran ya nga xam ne moom la ñuy jàng ci naafila makka ya ndax xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay déglu laa ñoom ñëpp musique bu bon boobu la ñuy déglu boo demoon ci la nga xam ne dañ koy tuddee tariqul islam dalay won ci internet bi ay benn xale boo xamee ni nii dafa xëy xëy dem ci docteur ay mbokkam indi ko ñu xool ko ni kii kat nopp yi yàqu nag si fini ñu ne ko waaye mais lan nga def ba benn guddi sa nopp yàquti mu ne ay li yéwén dama doon déglu guddi gi yépp musique ba fajar noddkat bi yëkkati nodd yi mën a waay merde ñi dañuy tànqal nit ñi daal di tëdd nelaw bi ma yeewoo laa déggatul loolee mbokk mi ngi noonu man ko enregistré sax sama port sama nañ ko ordinateur loolee ay misaal la yoo xam ne yàlla bu ko joxee avertissement la pour jeunes yi àdduna bi yépp ngan la way ragal leen yàlla ragal leen yàlla ci xéewal googu leen yàlla defal muy portable enregistre leen ci la nga xam ne moom mooy seen téere boroom jalla wa ala enregistre leen ci la nga xam ne mooy hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam conférence yaa ngi ne gàññ ci internet bi mën ngeen a télécharger lu leen neex ci thème yu leen neex ci xutba juma yi am ci presque lu bari ci jàkka yi am ci Sénégal na ngeen góorgóorlu xam ne boo jëlee sa casque di déglu Alquran bépp xarfu boo xam ne jàngkat bi jàng na ko am nga ci fukk tiyaaba moom mi ko jàng am na fukk tiyaaba yow am nga ci fukk tiyaaba loolee nag commencement bi dana métti lool bu dee ni musique suux na sa xol waaye xoolal waa ji dem ci médecin bi ñu ne ko da ngay bàyyi xorom wala da ngay bàyyi sukkar dana métti ci lool waaye loolu moo baax ci yaram bi loolu moo tax ba góorgóorlul boo ko defee bu yàggee rek sunu borom dalay may falaax sunu borom dalay may li nga xam ne mooy ak dal loolee nga xamee ni nii moom mooy julli googu ay yéen rappeurs yi yàlla may xel ngeen mën a taxaw di jabbatu pendant trente minutes ak a neexoon ngeen jéem a jàng seen téere boroom jéem a wattu baqara al imran jéem a wattu la yàlla wax suratu yusuf jéem a wattu la nga xam ne mooy qisasul quran xaaju guddi ngeen jóg di ko tari wallahi da ngeen ca yëg bànneex boo xam ne ba leen ba ngeen judde ba tey musu leen ko yëg sunu borom yàlla moo ko wax qad aflaha al muminuun alladina hum fi salaatihim xaashi'uun walladina hum ani lahwi mu'riduun texe ne day ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla bu ñuy julli dañuy taxaw ci kanamu yàlla di toroxlu waaye lépp lu ay caaxaan dañ koo dumóoyu mbokk loolee da ngay gis ne musique boobu benn drogue la bu la mën a may bànneex passager rek boo xam ne tant que temps bi nga koy déglu mën na laa drogué mais boo paree affaire yi daal di taxawaat am maa fexe jubóog sa boroom sa xol bi dund ci sa boroom loolu mooy bànneex bu sax bu lay gunge sa bàmmeel gumb gunge la ba yomal qiyaama ana kan ci yéen yéen rappeurs yi wala yéen ñi leen di déglu wala musiciens yi en général ana kan ci yéen moo bëgg jamono biñ koy jullee ñu koy tegal ay musique ana kan ci yéen moo bëgg bañ ko suulee bàmmeelam ñu ñëw di fa teg ay musique loolee bëggu leen ko kon la nga xam ne yéen ñëpp bëgg ngeen bëgg ngeen ko muy seen téere borom ana lu teewoon ngeen lënk ak moom jamono bi ngeen di man jamono bi ngeen di dund sunu borom mu ne allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatmainu alqulub sunu borom yàlla mu ne ñi nga xam ne dañoo gëm day lenn rek kay bànneexal seen xol muy zikrullah sunu borom mu ne est ce que du xol ci zikrullah rek lay bànne lay bànneexoo ah kay bala nga koo xam xoolal l'histoire de tous les musiciens moo di ne ne dañuy dund dund gu xat dund gu xaraj ñoo bari ci ñoom dañoo mujj sax di xaru tey jii ki gën a siiw ci àdduna bi ci musique internationale ci jigéen ñi mooy ki ñuy wax Madonna dañ naan mooy star bi nga xam ne laal bi diwee gën a yomb laal ko waaye am na benn livre boo xam ne dañ koy bind ci moom ménagerie yi ko wër dañuy wax dund gu xat dund gu jafe gi muy dunde ba ay guddi day taxaw di ko ah di ko di ko jooy ña ko jiitu woon ña ca xaru duñu jeex su ko defee yow yàlla moo la bind sa xol bi yàlla moo ko gën a xam xamal ne la ciy dugal bànneex bu sax dakk dakk dakk ca lu nekk kaka mos rek moo ko xam mooy xol bi jubag boroomam di jàng la nga xam ne nii moom mooy kaddu boroomam loolu moo tax ba ngalawaay bu ñu leen nax télévision yi bu leen rajo yi nax bu leen politiciens yi nax musique bi lu bon la ay rappeur lañu ay rog lañu ay jazz lañu ay lu ñu mën a tudde seen bopp ñoo bandkat yaag taaxuraankat ya ñoom ñépp ñoo yem na ngeen le ku ngeen ci bëgg ni ngeen ko wax mu tuub dellu ci yàlla santal yàlla ca mooy xéewal gam ko may mu jéem a jàng téere borom bi subhanahu wa taala lii rekk mbokk mooy la nga xamee ni nii moo ñuy mën a musal imaamu malikin benn ay gaay ñëw nañ ci moom naka waa malik yow loo xam ci musique Malik ne leen fa maza baad al xaq illa dalal ne leen lan moo nekk ci gannaaw dëgg lu dul ak réer te mooy musique ndax dana jegeel nit ki yàlla ndax jaamu yàlla la ñu ne ko déedéet mu ne kon yow jurit bi xellu demal ca la lay jural jaamu yàlla ca moytu leneen lu dul loole looloo tax ba mouvement yaana maar ñi ngi leen di wax au nom de l'islam ñu nit yaana maar ci seen musique bi yaana maar ci seen rab bi yaanaa maar ci ñi ngeen dévier sunu jeunes yi yaanaa maar ci ñi ngeen yàqe seen col gi yaanaa maar ci ñi ngeen yàqe seen xalaat yi ñooñee nga xam ne bi may mujj dégg y avait plus de cinq mille groupes de rap loolee y a presque cinq ans ci gannaaw tey xanaa mën nañ jege dix mille groupes de rap yaanaa maar ci seen groupe de rap yooyu ngalawaay nañ góorgóorlu waa dundal jàkka yàlla yi ndaw ñi dem leen ci jàkka yi jàng leen seen téere boroom nous sommes un pays pauvre la ñu mën a musal rek moo ñu jubóog yàlla li ñu am akas néew yàlla barkeel ñu mu doy ñu waaye bu dee dañoo bëgg a dunde adduna bi ay caaxaan ak tëgg ak fecc sunu problème day gën a bari rek yal na yàlla yee ñu ci sunuy nelaw yal na yàlla dundalaat suñuy xol yi wërsëgal ñu xamal ñu lan moo taxoon ñu ñëw ci kaw suuf wërsëgal ñu bàyyi loo ñu xel keroog ba ñuy taxaw ci kanama mu ñuy àttee yal na yàlla gindi sunu ndaw ñi teg ñu ñun ñëpp ala siratil mustaqim yal na yàlla wërsëgal ñu njiit yu ñuy teete ci ngërëmal yàlla di xeex lépp loo xam ne dafa safaanoo ngërëmal yàlla ci kaw suuf allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar allahuma habib ilayna aliman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuq والعصيان وجعلنا برحمتك من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين